ginnaaw c'est bon c'est bon eh eh non voilà les gars ñu dem ci passe pros ah. damay damay dagg live bi léegi ñu dem ci passe pros Ablaye il faut il faut que la sécurité là bu xam maa maa maa yaatu. passeport mooy le cadre la. passeport. Please. loxo bi loxo bi. ok c'est bon. c'est bon comme ça. Oh. C'est bon. C'est bon, hein? Si vous êtes prêts, les caméramans. C'est bon Inch'Allah. Voilà, monsieur le maire, vous avez souligné tout à l'heure euh, la marque Alors, euh, peut-être que vous avez retenu du salon de Joie, parce que quand on est maire, c'est le salon de Joie, c'est une relation, Quel message c'est au Sénégal d'abord waa Ziguinchor yëpp waa Sénégal yëpp waaye ak moom yëpp doon ndokkeel ci daje loolu jàpp ni yërmande ko seen am kon lii day firndeel aboutissement cappaandawu benn weer boo xam ne weeru jaamu yàlla la weeru dellu ci borom bi la ñu ñaan yàlla nangu ci ñun ñëpp li ci diggee tamit yàlla na ko yàlla may ndax li mu diggee ci weeru koor weeru la weeru yërmande la première phase weeru jéggale la ci deuxième phase bi fekk weeru boreel la première phase ñett yooyu nag ko yàlla may def naa mën ko say mbir baax na kon yàlla ñu ko yàlla boole euh, teewaat ko teewaat ko ay at yu bëri may ñu kàttan bi ñu waree daal di leen ko di am ci ñëpp ñi nga xam ne tey waxtu bi waroon na leen ci jumaa ak ci jàkk yi comme ñun ñëpp bu ñu paree ci loolu dem toog seen njaboot feete feet bi te xañ leen ko tey te dara xañ leen ko benn groupe magistrat yoo xam ne dañoo jébbul fas servir ab nit et non pas servir la loi donc ñu am xalaat ci ñooñu ñëpp nga xam ne tey teg nañ leen loxo loxo su dul dëgg jaay doole ak ci mbirum soxor moo ne weeru yërmande la ñu génn ñaan yàlla mu jëlee ñu fa mu gën a gaawee. loolu nag dama ko wax ci wàllu lu jëm ci mbirum yàlla waaye li nga xam ne mbirum nit lay dinañ ci def liñ ci war a def yëpp ndax yàlla defal kenn doo mënal sa bopp te yàlla duggul yàpp balaa muy jàpp ci li ngay def rek yow bu njëkk a wane sa jàmbaar ak sa effort ba boo demee ba mënatoo boo tàllalee loxo yàlla defal di adressé un message sénégalais yëpp nag message weesul bi wax ni ñu ngi dëgmal loo xam ne gëm naa ni juróom juróom-ñeenti weer gën a day waar ci Sénégal mooy juróom-ñeenti weer yi ñu dëgmal mu ngi ñaan yàlla nag def jàmm parce que jàmm ci la lépp xaj tey bu ñu amoon jàmm fi ñu taxaw nii di julli dañ ci taxaw pétard rek boo moytuwul moom ko sànni woon fii léegi journaliste yi moom xam naa yàgg naa leen gis si terrain bi daw rek la ñu ci la lépp xaj jàmm yàgg naa tàkk ay guerre am na ay millions de millions de

loolu mooy nit nit dafa xaw a ngeen jéggal ma may waxu yàlla du sama wax nit dafa xaw a doy di yenn saay yàlla bi muy tuddee nit daf ko tuddee al insaan ci alquran insaan mi ngi jóge ci verbe nasiya mooy kuy fàtte nit dafa gaaw fàtte dañoo gaaw fàtte trop te duñu xam valeur lu ñu yor ñun ñii yaroo fii Casamance nga xam ne ay at ci gannaaw fii biir Ziguinchor da nga daan toog dégg armes yi di dóor ñun xam nañu lan mooy ñàkk jàmm balaa ngay xam nag valeur li nga yor nga ñàkk ko li may ñaan Sénégal yi nag mooy ñu bañ a sàggan ba ñàkk ko ndax léeg li koy li koy yàq defaru ko fitna bu xasee ba toog li koy yàq defaru ko te li mun a tax nag ñu bañ koo ñàkk mooy àdduna ni mu demee léeg-léeg mënul ñàkk muy ci biir couple ci biir kër muy diggante bàyyi ak doom muy ay xarit muy ay ñu bokk liggéey léeg-léeg réeroo mënul am moo tax ñu jàngal ñu ni fu réeroo amee rek nit ñi waruñoo seetaan dañoo war a atte waaye atte bi nag yàlla ci boppam da koo teg ci charte dafa ne bu ñaari nit tongoo ñëwal nga essayer négocier rafetal seen diggante waaye boo demee ba gis ni kii nangu na te tooñul nga gis ni kële moo tooñ moom mooy dóor mooy tëj mooy rey mooy gaañi lala diine sant te muy lu tegu ci ñun ñëpp nag quelque que suñu grade mooy kiy tooñ nga jàpp ci loxoom ne ko bàyyil tooñ bi lu ko moy ñun ñëpp dañuy ànd xeex la ba nga dellu si ci yoon loolu ay alxuraan la man inventé wu ma ko loolu lañ ñu jàngal kon bu ñëpp dajee def loolu jàmm dina am Sénégal waaye bu ñu buggee ndax léeg-léeg ragal dañuy ragal dëgg bi gis nga bu doon tey ñun ñi nekk ci kujje gi ñoo tooñ ñu bëri ñi nga xam ne tey noppi nañ duñu am problème pour nañu yéen yéen a tooñ waaye bu dee nguur moo tooñ dañuy essayer renvoyer ñëpp dos à dos waaw ñi ngi wax ak politiciens yëpp politiciens yi yërëm leen réew mi déedéet politiciens yi ñu benn nit bu ñu dajee am problème paw rek am na ku tooñ dañu am sañ-sañ nag ni kii moo tooñ loolu mooy régler problème bi ki tooñ bu ñëpp dajee ne ko yaay tooñ nu mu nu mu nu mu nu mu soxor soxor soxor dina xoolaat boppam dina dellu gannaaw mais tant que nit ñi ñi ngi ne tecc rek ne màndu nañu dafa mel ni ñoom dañoo sotle ki nga xam ne moo tooñ may lancer appel boobu Sénégalais yi ñu xam ni ñun ñëpp jàmm lañu bëgg jàmm lañu yaroo moom la ñu màggee kenn mësuñoo xamee ay koñ bii ma nekk fii laa yaroo màggee fi kenn xamee fi ay sama kër a ngi fii kenn xamul suñu kër ay jàkka jii ma julle bi ma amee huit ans ba léegi fii laay jullee kon ñun xamuñu histoire xamuñu ay mosuñoo yéene nit lu bon mosuñoo song nit mosuñoo def nit lu bon yarewuñu ci loolu waaye ki gën ci ñun ñëpp mu yent yàlla Muhammad alayhi salaam yëkkati na jaas yi dem xeexi te kenn gënu koo bëgg jàmm bañ na ba diine gi ko yàlla andil islaam la tudd islaam mi ngi jóge ci salaam islaam mooy jàmm waaye dafa fekk li ñu naan muus sax boo ko tëjee ci néeg boo ko puusee ba mu sës day song loolu mooy indi léeg-léeg yii di am kon ñu ngi ñaan jàmm di ko dox waaye jàmm nag ñaar a koy séq benn nit mënul def jàmm tubaab nee na il faut être deux pour faire la paix mais un seul pour faire la guerre loolu dafa am solo tey Russie bu décidé woon tey à minuit guerre bi jeex guerre bi jeex donc guerre bi ngi dépendre ci Russie mais jàmm ji ñaar ñooy toog waxtaan ko di daaneel nag ci suñu li ñu bokk fii muy Ziguinchor euh, di dellu remercier waat population Ziguinchor ci seen confiance ndax tabb nañ ma depuis un an daanaka ma nekk ci boppu mairie bi ñu ngi sant yàlla ñu ngi def liggéey boo xam ne bu am solo la gëw ma ni population Ziguinchor dina am suñ ci génnee politique par parlo kujje population Ziguinchor ñoo ñëpp teg nañ bët ci li ñuy liggéey ñu leen ci gërëm bu baax di ci féliciter tam équipe municipale bi waaye di leen gërëm it ci compréhension bi ñu am ci man ak patience ndax bi may jël mairie bi ñoom ñëpp xam nañ lii sama dimension ci politique xam nañ ni li ma soxla defe naa si moo ci gën a tuuti fépp lañ ma soxla Sénégal mun naa ne sax au la du Sénégal ñu ciy sant yàlla nag du suñu mérite mais loolu la yàlla tudd ba tax am nañ ci compréhension bu doy boobu ba nga xam ne bokkuñu ci population xam ne saa yu ñu xëyee maire bi gisuñu ko maire bi ñëwul ndax su ma fi newul it samay collaborateurs yi ngi nii amul bés boo xam ne xëyuma ci mbirum Ziguinchor suba ba ngoon jot moo xam li may lijjanti dakaar bu sottee ma indi fii sotti moo xam conférence ko li nga xam ne daanaka maa ngi koy def ak le bureau municipal di ko def ak le secrétaire général di ko def ak ñëpp daanaka au jour le jour ñu ngi administrer la commune de Ziguinchor léeg-léeg ñu am jafe-jafe ñëw ni ñu ko mëne woon parce que ñiñ ko ñiñ ko seqal seen stratégie yëpp mooy nu ñuy bloquer Sonko ba du mun a liggéey ci mairie ba ak du mun a def ses tournées politiques à travers le pays waaye jamono jooju lañu gën a mun a liggéey may annoncé nag population Ziguinchor ni soobe yàlla mercredi bi dinañu lancer d' ailleurs les douze grands travaux de la mairie. Euh, li ma leen waxoon rek Ziguinchor dinañ ko liggéey ba Ziguinchor weer gis ni nu ñuy liggéeyee jël nañu at pour stabiliser mairie bi càmbar lépp xool lépp li ci ëppoon ñu wàññi ko li ci matuloon ñu yokk ko defaraat fonctionnement bi defaraat organisation bi euh, lancer un certain nombre de chantiers et de travaux waaye bu soobee yàlla ci diggante boobu it jël nañu temps wu concevoir finaliser les grands projets yoo xam ne mi ngi woon ci suñu programme bu rog yooyu nag dinañ ko lancer mercredi bi bu soobee yàlla bokk na ci l'aménagement d'espace public parce que dañu bëgg Ziguinchor nit ñi di am fu ñuy doxantujee fu ñuy toogee féexlu ay place verte bokk na ci l'aménagement de plateau sportif te bu ci njëkk mooy le stade Jules François Bocandé nga xam ne on va au norme aux bu soobee yàlla bokk na ci Euh, voirie bi ñu bëri dinañ ko lancé ci ay pavage yu ñu war a def ak ay euh, aménagement de route pour ñëpp mun a accéder facilement seen quartier bokk na ci tamit euh, les postes de santé ak les écoles bokk na ci ñaari marché yu bees yi nga xam ne bëgg nañ ko tabax muy marché aux poissons ak marché aux produits agricoles pour désengorger marché Bukot bi dinañu lancer aussi officiellement économie sociale et solidaire parce que dama ne woon mënoon nañu yem ci liggéeyu mairie kese waaye bëgg nañu xool ni ñuy jàppalee jàppale Ziguinchor yi daa warati na ndaw ñi ak jigéen ñi avec de petits financement pour nit ñi liggéey bi ñu ko lancé quelques mois ci gannaaw fekkee woon ngeen ko dama ne woon suñu atteindre cent million ci levée de fonds yi mun nañu commencé di tourner ndànk-ndànk yàlla def na atteindre nañu montant boobu ak yeneen ak yeneen yoo xam ne Euh, ci suñuy programme phare la bokk l'éclairage public lampadaire solaire yi nga xam ne surtout quartier yi nga xam ne ñoo gën a manqué éclairage yooyu les douze travaux les douze grands travaux de la mairie soobee yàlla mercredi dañu invité tous les Ziguinchorois def lancement officiel bi pose les premières pierres pour yenn chantier yi nga xam ne dafay démarrer ñuy woo Ziguinchor yëpp ñu jàpp ci parce que dëkk bi ñoo ko moom kenn du ko defar ku dul ñun. dëkk boo gis mu baax ci àdduna waa dëkk ba ñoo ñëwee sonn ci dëkk bi mais kenn ku ne su toogee fi mu toog ne sama yoon newu ci ba pare naan maire bi defarul pavage bi maire bi andil poto lampe maire andil maire bi du ay milliards yu mu yoral boppam yu muy ñëw joxe donc ñun ñëpp ñooy ànd jàpp si defar dëkk bi pas pour ñun mais pour suñuy doom au moins ñu am un cadre de vie boo xam ne day méngoog li gën ci àdduna loolu moom mooy euh, message bi ñuy adressé waa Ziguinchor particulièrement kon ñu ngi leen di gërëm di leen sant euh, je crois que ce que vous avez posé comme question je commencerai par euh, remercier euh, tout le monde j'ai oublié de le dire en version wolof à commencer par euh, l'imam Ratib l'imam Diago qui est une connaissance de très longue date euh, je crois que déjà vers les années 90 quand je revenais de l'université il m'invitait à la radio Sud FM. On faisait des émissions. Euh, donc on se connaît depuis très longtemps. Euh, son sermon, euh, comme je l'ai dit lui-même, il dit que je dis l'imam Diago et tout restait égal à lui-même. est un sermon très évocateur par rapport au contexte. Le mois de Ramadan, comme il l'a dit, c'est un mois qui euh, qui a été décrété par le Seigneur, non pas pour faire mal, pour euh, affamer les gens, mais il y avait un objectif, c'est euh, nous, nous ramener à lui euh, par la piété, le taqwa comme il l'a dit. Et c'est pourquoi c'est un mois extrêmement important, 1 sur 12, où lui-même le Seigneur nous dit que c'est un mois pendant lequel même Satan est maîtrisé pour vous permettre de recharger, de vous ressourcer spirituellement. Et nous prions pour que le Seigneur agrée tous nos actes de dévotion, toutes nos prières également, euh, qu'il nous accorde ce qu'il a promis dans ce mois, notamment euh, sa miséricorde, mais également la promesse euh, d'un agrément euh, via directement au paradis. Nous prions également pour qu'il nous accorde la possibilité de le vivre encore et encore des années. Et toujours avec plus de prospérité, plus de paix, plus de stabilité et plus de bonheur pour tout le monde. Plus de santé, évidemment. Je ne peux manquer euh, d'avoir une pensée pour euh, tous nos amis, nos frères, sœurs, nos camarades qui ont été injustement incarcérés par une poignée de magistrats aux ordres. Euh, le, euh, le frère Diomaye Faye a utilisé un terme dans un poste et ça lui vaut la, la prison, c'est le terme clochardisation. Effectivement, il y a une forte clochardisation d'une poignée de magistrats, je le répète comme il l'avait dit. Et c'est malheureusement ce, ce, ce, ce petit groupuscule de magistrats qui ne font même pas dix en réalité, qui aujourd'hui exécutent les salboyons pour prendre des innocents. Des gens très utiles à leur pays, plus utiles à leur pays qu'eux-mêmes. Parce que si vous prenez un, un, inspecteur principal des impôts, avec son parcours, mais ce qu'il peut rapporter dans les caisses de l'État, pour des, excusez-moi du terme, mais des enfantillages, vous le, vous le mettez en prison, vous êtes en train de nuire plus au Sénégal qu'à ce monsieur. J'ai une pensée pour tous ceux qui sont incarcérés. Vous savez qu'on en a des centaines, injustement, dans le cadre d'une traque politique. Aujourd'hui, ils auraient dû être avec leur famille, avec euh, euh, leur communauté religieuse. Ils vont prier dans des conditions que nous connaissons. Nous ne ménagerons aucun effort pour les faire sortir le plus tôt possible. Euh, pas un jour pour hausser le temps je m'en remettrai à ça. Mais vous comprendrez bien que nous ne baisserons jamais les bras. Euh, à l'endroit de tous les Sénégalais, leur souhaiter une bonne fête euh, et leur réitérer notre attachement à la paix. Parce que sans la paix, rien ne peut se faire. Nous ne serions pas là sous, ce manguier, dans la cour d'une mosquée à Palabré, s'il n'y avait pas la paix là où nous sommes. nous sommes fondamentalement attachés à cette paix. Même si quelquefois, pour avoir une paix, l'histoire a démontré qu'il faut passer par la guerre. Même le prophète a été contraint à faire la guerre. La guerre, on l'a fait pour quelqu'un qui croit en Dieu, pour quelqu'un qui respecte la humain, quelle que soit son appartenance ethnique, régionale, religieuse, euh, confrériques, etc. Pour quelqu'un qui est un humaniste, la guerre n'est qu'un moyen de défense, n'est jamais, euh, on la décrète jamais de manière offensive. Et c'est ce que nous apprend, nous apprennent tous les grands hommes. Si les prophètes ont été obligés quelquefois de faire la guerre, c'est parce qu'on les y a obligés, on les a contraints à la faire. Mais autrement, personne ne souhaite la guerre parce que elle n'est facile pour personne. réitérer aux Sénégalais que nous sommes fondamentalement attachés à la paix. tout ceux qui nous connaissent nous ont connus. Ici, c'est mon quartier où j'ai passé toute ma jeunesse, toute mon enfance. Vous ne verrez aucun de nos cohabitants vous dire que il a connu Ousmane Sonko comme un homme de, euh, un perturbateur ou quelqu'un qui ne veut pas la paix. Et vous ne verrez jamais quelqu'un vous dire la maison ou les parents d'Ousmane Sonko, on les a une fois surpris dans telle ou telle situation conflictuelle. Nous n'avons pas connu ça et nous ne le souhaitons pas. Nous sommes donc fondamentalement attachés à cette paix. Nous la souhaitons, nous y travaillons tous les jours. Mais pour faire la paix, il faut être deux. Et si on continue à nous contraindre à nous défendre, nous serons obligés de nous défendre. Nonobstant, malheureusement, une situation que tout le monde constate et déplore. C'est sur toutes les lèvres. Euh, nous avions tendance à dire que nous avons des mécanismes de régulation au Sénégal. Apparemment, ces mécanismes sont en train de, de faiblir dangereusement. Puisque nous sommes à jour de fête religieuse, religieuse et que euh, il est important de se référer aux enseignements religieux en conséquence, pour euh, ce que je maîtrise de plus, notamment la religion musulmane, euh, la manière dont on gère ces situations-là a été clairement arbitrée par des versets coraniques. On nous dit que s'il y a deux euh, parties qui s'affrontent, les autres ont l'obligation d'arbitrer, de, de commencer d'abord par essayer de concilier et de réconcilier les gens. Mais s'ils se rendent compte qu'il y a une des parties qui ne pose pas problème, mais qu'il y a une autre partie qui continue à vouloir euh, créer les conditions du conflit, il est important que tous le rappellent à l'ordre et s'ils refusent, que tous se lient, se liguent pour le combattre jusqu'à ce qu'ils reviennent à la raison. Ça, c'est un verset coranique que je n'ai pas inventé. Et tout le monde sait ce qui se passe dans ce pays. C'est à sens unique. celui qui instrumentalise la justice, qui fait des, des arrestations arbitraires, qui essaie de liquider des candidats parce qu'il en a peur simplement, qui, essaie, euh, qui lâche ses forces de l'ordre sur les gens. Et c'est l'occasion pour moi de revenir sur ce qui se passe souvent en Casamance. Euh, vous avez vu depuis deux jours ce qui se passe à Gore. Et pour le moment, on ne déplore aucune perte en vie humaine. Il aurait suffi qu'on dise que c'est à pour je l'ai toujours déploré et je l'assume, ce traitement euh, totalement euh, injuste et injustifié quand il s'agit de la Casamance doit cesser. Nous sommes tous des Sénégalais, nous devons être traités euh, même pied d'égalité. Donc nous demeurons attachés à cette paix, nous y travaillons, mais ce n'est pas pour autant que nous allons nous laisser marcher dessus. Et c'est pourquoi nous avons toujours invoquer notre droit constitutionnel à la résistance. Celui qui résiste, il se défend, il n'attaque pas. Euh, par Ziguinchor et dire simplement que euh, je remercie encore une fois les populations Ziguinchor qui nous ont investi de leur confiance depuis un peu plus d'un an maintenant et qui nous accompagnent. Euh, je crois que je suis le maire le plus chanceux du Sénégal. Euh, c'est parce que d'abord la population ziguinchoroise fait bloc derrière nous, indépendamment des petites gesticulations politiciennes. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans une ère de communication. Il est très facile d'instrumentaliser 10, 15, 20 personnes et de dire à la presse nationale. Et c'est ça l'importance Ziguinchor est devenu un, un intérêt national. Même s'il y a un moustique qui pique une crise, c'est à la une de les, toute la presse nationale. c'est très facile de mobiliser quelques personnes pour leur dire allez faire brassard rouge, allez crier, allez etc. Et pour dire après, oui, même dans sa mairie, il a des problèmes. je crois que nous sommes 300 000 Ziguinchorois. Et l'écrasante majorité, pour ne pas dire la totalité des Ziguinchorois, nous manifeste leur satisfaction par rapport à ce qu'on a commencé à faire depuis un an. Nous leur remercions de leur tolérance également parce que euh, du fait de, mon, de mes occupations au niveau national et même international, je ne peux pas être aussi, aussi présent que je le voudrais. Mais les Ziguinchorois l'ont compris et m'accompagnent par rapport à ça. Ils savent qu'on est à 10 mois, 9 mois d'une élection présidentielle cruciale. Et je crois pouvoir dire modestement que si je ne suis pas le mieux placé, je suis parmi les deux les mieux placés aujourd'hui pour euh, espérer être président de la République dans 9 mois. Et ils C'est une demande nationale. Ziguinchor a besoin de moi, Saint-Louis a besoin de moi, Matam a besoin de moi, Mbacké a besoin de moi, Kaolack a besoin de moi. Je suis souvent d'être euh, de répondre à tous ces Sénégalais. Et les Ziguinchoraux l'ont compris, ils m'accompagnent, je les remercie. Et euh, c'est dû également à la qualité de l'équipe municipale, à commencer par mes conseillers, le bureau, euh, l'équipe technique administrative, du moins. Ils sont en train de faire un excellent travail. Je peux rassurer tout le monde que tous les jours également, je suis de très près ce qui se passe. tous les jours en contact avec les gens individuellement ou dans des réunions groupées par Zoom. Et nous prenons les décisions qu'il faut pour la ville. Et je terminerai par annoncer à ces Chorois d'ailleurs que euh, dans quelques jours, le mercredi, allah nous allons lancer les 12 grands chantiers de la Et c'est des chantiers infrastructurels, mais également des chantiers euh, allant dans le sens du, du financement. Mais nous avons opté pour des infrastructures euh, structurantes. Faire des choses qui soient utiles pour tout le monde, qui soient utiles pour les populations, pour les professionnels, mais également pour la mairie. Et c'est pourquoi parmi lesquels je vous citer quelques-uns de ces grands chantiers. Euh, Aujourd'hui, nous avons un problème d'infrastructure sportive. Je crois que le stade Aline Souté devrait être incessamment d'ailleurs fermé. Et même le Casa Sport devra en ce moment recevoir à Dakar. Alors, nous avons opté pour euh, refaire totalement le stade Jules François Bocandé et le mettre aux normes qu'il faut, avec une pelouse synthétique, une piste d'athlétisme, refaire les tribunes, l'éclairage, mais le terrain de basket également et le terrain de, les terrains de handball et de volleyball. Euh, nous avons aussi décidé de construire deux nouveaux marchés, mais de réhabiliter aussi les autres marchés, notamment le marché Baneto et le marché Mariama Diédjou, marché HLM. Euh, nous avons décidé de lancer un certain nombre de, de travaux de pavage euh, et de réfection des routes existantes. Nous avons décidé également de construire deux nouveaux marchés un marché aux poissons à Boulodi un autre marché aux fruits et légumes qui sera sur le boulevard 54. Et nous avons aussi euh, le projet d'aménagement d'espaces verts. Parce qu'il faut, faut, une ville doit respirer. Euh, aujourd'hui, c'est le même problème pour Dakar. Si vous voulez sortir avec votre famille ou seul pour aller vous promener, aller prendre de l'air quelque part, vous avez du mal à trouver un endroit à Ziguinchor. Et nous voulons pouvoir offrir des cadres comme ça. Nous avons ciblé pas mal d'espaces. Nous allons commencer avec 4 ou 5 espaces dans un premier temps et graduellement en faire d'autres pour euh, que chaque quartier à Ziguinchor puisse disposer d'un espace comme ça, plus des plateaux sportifs au niveau des quartiers. Et il y a aussi l'éclairage public. Euh, une commande va être lancée dans un premier temps de 1500 lampadaires solaires qu'on va déployer évidemment par ordre par rapport aux Et il y a, il y a enfin l'économie sociale et solidaire, euh, puisque nous avons atteint l'enveloppe minimale qu'on s'était fixée, c'est-à-dire les 100 millions pour commencer à tourner avec euh, des fonds revolving financés. La petite économie, hein, mais aider les gens à avoir au moins un petit capital et démarrer une activité, avec comme cible principale évidemment les femmes, euh, pour, pour, pour ce que nous savons tous, mais également cette jeunesse que nous voulons de plus en plus appelé à, à se prendre en main par l'auto-emploi. Il faut, il suffit juste de la pousser et de l'aider un peu. Donc c'est, entre autres, quelques-uns des grands chantiers que nous allons lancer et nous espérons pouvoir euh, les réaliser le plus rapidement possible, en tout dans des délais très courts pour le bénéfice des Iguinchorois. Donc nous souhaitons à tous une très bonne fête et nous prions pour que le Seigneur nous accorde encore la possibilité de la fêter des décennies encore. Euh, incha allah merci beaucoup.